Rewmi 24 TV mu mel ne euh, la ñu doon xaar fi moo toll nii ca suba ba léegi mooy procès Ousmane Sonko boobu ndax dañ koy jëlaat ci liste électorale yi wala bokk dañuy continuer di ko rajee bu ñu xoolee rek daal dinañ koy dàq ba 14 décembre bi ñu jëm mu doon loo xamante ne rek ñu bari ci askan bi dañuy wax ne rek saa yu Ousmane Sonko rek jàppee ne dina am victoire ñu daal di koy rek euh, xajamal kon loolu la ñuy waxati tey jii ginnaaw ba nga xamante ne la 12 la ñu waxoon tey jii nii askan bi yëpp di xaar ca tribunal ñu daal di rek commencé audience bi depuis 10 euh, heures ba fi yéen ni 18 rek euh, daal di jot presque waaye nag li ñu wax rek mooy daal di nañ koy rek délibéré mu daal di jëmaati rek 14 décembre mu doon loo xamante ne fi mu toll nii ñu bari ci askan bi dafa mel ne sax la ñuy wax mooy affaire bi euh, da leen mujjee rek soof ndax kat euh, liñ koy dàq dafa bari bari boo xamante ne daal kenn mënul xam rek ñi lu ñu bëgg ndax kat àtte moom dafa mel ne rek dëgg bu réeree si am penc rek ñu koy wër su booba ngoon gisuñu ko rek dafa mel ne rek ña fa nekk ñoom ñoo mag ñi ñoom ñoo jibul comme nañ ko daan waxee comme loolu moo awatee ginnaaw rek ba nga xamante ne procès bi daal dinañ koy rek yóbbuwaat wala 14 décembre.